الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا يقول سبحانه وتعالى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار مبك برمب سبحانه وتعالى وخونا يني ومنهم من يقول ربنا aatina fi dunya xasana wa ma lahu fi laaxirati min xalaq mu ni am na ci ñun ñii ñoo xam ni li leen yitteel fii ci àddina mooy àddina rek bu ñuy ñaan yàlla àddina rek la ñuy ñaan àddina rekk la ñuy topp fàtte ndigali borom bi subhaanahu wa taala fàtte ay tereem topp xéewali àddina wala luñ jàpp ni xéewali àddina dang dangi waaye borom bi sañu ñun jullit muni waye amna ño na ñoo xam ne la wax moy rabbana atina fid dunya hasana amna ño ñoo xam ni ñoom ñu ngi seeni xel dañu naan yàlla yàlla nak ñu may ci jam jam ci adina yàlla yàlla nak ñu may jam ci alakhira yàlla yàlla nak ñu mussel ci mbugalum sawara mu melni kon borom bi subhanahu wa taala dafa bëgg kenn ku resu ñun nga xamni adina bi nga nek dub saxu way waye dang fee wara nek ngir jaamu borom bi subhanahu wa taala ñu dellu ci yàlla naan ko suñu boroom ay waay yàlla ñun ndey bu ñu juumee yàlla boo ñu ko jàppee waaye itam bu ñu fàttee yàlla boo ñu ko jàppee yàlla yàlla boo ñu teg loo xam ne attanuñu ko ma ni kenn ku ne su ñun war nañoo toog di ñaan borom bi subhanahu wa taala ñaan ko njëggal ñaan yàlla yërëm ñu ñaan borom bi subhanahu wa taala jàppale ñu kenn ku ne su ñun am certitude xel mu leer ci ni yàllaay boroomam yàlla rekk a war a digle muy def yàlla rekk a war a tere muy muy bax jamono ju nekk war nay sóor boroom bi subhaanahu wa taala ma ñu loolu kenn ku ne war na cee delluwaat ci jamono ji ñu toll xam ni àddina nekk na ci jafe-jafe boo xamante ni dara mënu ko cee génne lu dul yërmandey boroom bi subhaanahu wa taala yërmande jooju nag bokk na ci li koy indi wala sax li koy indi mooy kenn ku nekk delluwaat ci sa bopp xool say say jëf xool say wax xool say doxalin càmbar ko jéem koo xam ne lii jaarul yoon li ci li ci jaar yoon nga jéem cee góorgóorlu li ci jaar nga jéem koo tuub jéem a jaar ci yoon nga xam ne moo la borom bi subhaanahu wa taala teg ma ni mbokk àddina tey sonn na àddina tey jaxasoo na bokk na ci li ñuy jaxase mooy dellootuñ ci borom bi subhanahu wa taala ma ni kenn ku nekk koor gii di jeex muy bés bu rëy iidul fitre yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon nañu ni bàyyil naa leen fi ñaari feet mooy feetu tabaski ak feetu korite ma ni mbokk feet gu rëy la goo xam ni war nañ cee bàyyi xel ni liñ doon def ci weer wi jeex borom bi subhanahu wa taala waxoon ni képp koo xamante ni nii ak ñàkk nga chance ba amoo ci njëggalul borom bi subhanahu wa taala xamal ni yow ku ñàkk chance nga ma ne yàlla na yàlla def ñun ñëpp ñu am chance yàlla na yàlla dimbali ba suñuy ñaan yàlla na ko yàlla nangu yàlla na yàlla teggil àddina bi jafe-jafe yi nga xam moom lañ nekk nattu yi nga xam moom lañ nekk jaaxle gi ñu xam moom lañ nekk yàlla doo nga ko mën a teggi keneen mënu koo teggi yàlla na ko yàlla teggal